macha allah sëriñ bi bokk nga ci réew mi ñi nga xamante ne bi yéen a fi dàq gis euh, di tëdd ñu lay wan euh, rawatina boo dee seetal nit sax da ngay toog rek di ko wax ay mbiram naka la demee tey boo doon seet ci réew mi vraiment gis avenir u euh, réew mi ci Ousmane Sonko mi lan nga ñu ci mën a wax. <laughs> naa bàyyi ba Sonko laaj ma laaj ma loola xam nga. ba Sonko seet loola. waaw waaw parce que ñu bëri dañuy seetal Sonko ah te seet te seetloowu leen. waaw xam nga ñàkk xam-xam weesuwul. nga toog xam nga man tey su ma neexoon nii nii tey mën naa wax Sonko nii ak nii ak nii na ko def procès bi nii lay mujjee moom mam mam mbay ñaa ak nii ak nii Sonko dinaa ma nanga ma nang billaahi la si laa ilaaha illallaah mën naa la wax lépp te du dañ fii ba élection yi li na xew Sénégal lépp mën naa la ko wax barke alxuraan mais sama jëm bopp lu ma ci tëdd guddi gis ko wala lu ma ci wan naa def la ma ci mën a def saraxe lu ma ci mënul may wakkilu yàlla d'accord wakkilu suñu borom téye sama kurus ñaan suñu borom réew mi jàmmam bi waaye mbiru nit nga seetal ko ne Sonko lii dina ko dal wala Sonko lii dina am loolu waxum mais boo mënee wax ci moom lu baax daal wax yan sarax fi mu nekk nii la réew mi laaj sëñ bi. réew mi laaj na salaamun xawlan min rabbin rahimin. salaamun xawlan min rabbin rahimin. waxoon naa ko fii waxaat naa ko. Mm-hmm. actuellement nii am na régions yu jot a def seeni mbir am na yeneen ñu des man loolu spécial ma ci jiite xam ngoon woo ma benn organe de presse ne damay def conférence de presse pour def ko. Mhm. te xam su ma ko yaataloon ñu bari dañ ci dugg seen loxo. Mhm. mais loolu laay bañ. am nañu ci bokk spécial ñoo xam ne ñoo ngi ca daara ja di jàngale. Mhm. léeg-léeg nga dégg ñaan doomu daara yi am nañu Sonko doomu daara yi am na ñoo xam ne doomu daara yi am ñoo xam ne yoruñu daara <laughs> dëgg la. doomu daara yooyu. xaaj bi yoruñu daara. yoruñu daara amuñu daara. d'accord ñu doomu daara yi. ñu nekk ci daara ji di jàngale boo xëyee suba ñu jàng fajar suba ñu jàng ngoon ñu jàng guddi ñu jàng ñoo ñoo daara yi nga jaar ci daara ne doomu daara nga déedéet nga jaar ci daara te doo <laughs> ngaa jàng français jàngoo alxuraan jàngoo dara mais yow li ngay def ñi jàng alxuraan sax am ñoo duñ ko def ngi lu baax mën ngaa bañ jàng ba ñu jàng dara mais soxla bi dafa nekk xal xalbin salim mm-hmm. nañ bàyyi naxante yi jafe na waa Touba Mbacke mel ñenn ñi ci nit barki démboo Ndiaye nga gis ko mu dem euh, sol yëre Baye Fall dem ndaw yi àndandoo ak moom donc mu jaraloon leen lu ne bés boobu. waaw loolu habituellement la rek parce que Ousmane Sonko am na droit bu ko neexee sol yëre bu ko neex. Mm. jullit la la moo tax mu sol costume te costume yëre la. Mm. loolu loolu loolu du dara. donc doomu daara yi ñuy wax noonu. nit du am complexe. nit warut am complexe ci àdduna. dafa sol Baye Laal. ñaxas jàpp ne bu ko solee nit ñi dañ kontaan dañ bëgg mu ne naa ko sol kër bu gën leen a gan nag bu ñëwee lu mu neex lay sol lu mu neex lay lekk. dëgg te yonent bi nee na gan teral ko dafa bokk ci àdduna dafa bokk ci nite teral gan dafa màgg. Mhm. am na ñoo xam ne booy leen teralee yàlla jéggal say bàkkaar Euh, macha allah mais yaa ngi doon wax lu am solo léegi léegi euh, mooy que ni vraiment ku xam Serigne Bara Niane xam ne c'est un marabout international euh, sa dimension yamul sax ci Sénégal mais dama gis ne fi mu nekk nii li la yàlla may yaa ngi koy jël di ko defaat ci réew mi ngir réew mi am ay am jàmm ay sarax yoo xamante ne bi yaa ngi wër un peu partout ci région yi di ko fa joxe parfois lu tax sañ bi dooy médiatiser loolu comme ni ko ñenn ñi di defee bu ñu waree génne sarax woo bi ñu ñëw donc filmer ko wane ne itam. sëriñ diw moo def lii yaa ngi koy def te itam li la nga ci jublu rek mooy euh, jàmmi Sénégal ngay def torne national boo xamante ni bii rien que pour jàmmi Sénégal moo tax. waaw xam nga dafa am loo xam ne boo koy def bu dee yàlla rek a tax. ku ci fekk si mën nga ne ko bisimilah ku la ci fekk si mën nga ne ko bisimilah yàlla rek taxee ku la ci fekk si baax na ku la ci fekk si baax na ndax ku ànd na yàlla ànd nga ak ñëpp ku ñàkk yàlla ñàkk nga ñëpp. booy wut alal dëgg te bëgg mu gaaw dangay am téeméeri nit. lekk téeméeri jàmbur am téeméeri nit ko gën. ndax kenn ko mën naa jox téeméer dërëm mu mot téeméer te téeméeri jàmbur ba nga lekk boo ko lekkee day jeex te ko doo joxe téeméer kon am na ñi mooy li am solo te yàlla mu ci biir nit ñi te nit ñi xamuñ loolu yàlla ngi ci biir nit ñi ku nekkal nit ñi yàlla nekkal la man kaan lay la lahu mm-hmm. nit ñi yàlla doo ko jaamu direct ci nit ñi nga koy jaarale d'abord ba pare nekk ak nit ñi ci jàmm di def ak nit ñi jàmm yéene sa bopp li nga yéene sa bopp nga yéene ko nit ñëpp ba pare soog di wax ci suñu borom ndax suñu borom ba mu la bindee la pare ci yow dalay lay xool ba xam léegi da nga koy jaam wala nga koy moy mais moo sarax yi tamit aggalil mhm, waay mhm. man du ma sëriñ <laughs> boo xam ne damay génne sarax woo télé yi wala wala moo site internet yëpp teg leen ne leen maa génn sax ci réew mi non du ma ko def mhm. coupe d'Afrique bi bi ñu ma yóbboo bi ma ministre bi yóbboo. Mm. ba màggee. hôtel ba ma dal boo ko tag ñun yóbbu na hôtel ba ñu dal. Mm-hmm. man Cameroun li ma fa def ëpp na ñaar fukki yoon damaa dem ba Douala jël fa sama wàllu bopp nekk li may def def li may def. ba mu jeexee si naa photo sax defuma ko te am na ñoo xam ne jam caa photo deful ne. waaw ah, parce que sëriñ si ñu yóbboon yëpp dañu fa dem di. yaa ngi photo di sinap alors yow. Euh, damaa toog sama kër ñu ne ma diw moo la soxla ma ne ko man actuellement nii mënu maa dem. ñu ma ah dañu laa bëggoon yóbbu nangam naa nga fayal nangam ci xaalis mais ah dafay dagg sama yitte ndax ku bàyyi yitte rek ku bàyyi dara def dara mu yëkk sama passeport jox leen ko ñu dem ambassade Cameroun ba benn fan laa toog ab nit ñëw jox ma ko sama kër Cameroun. parce boobu itam da nga toog def révélation ne bu ne ne. waaw ne coupe bi dafay ñëw. waaw am lu ma wax. kenn gëmu ko woon ma may la ma wax tamit waaw xam nga nit ñi moom ñëpp mu ñu la bëgg gëm la kenn ko woon waaye parce que yàlla sax am ñu gëmut ba léegi nit yi mm. yàlla si ba am ñu gëmut ñëpp mu ñëw ak gëm nit bu la ñëpp gëmee naa fiq nga ñëpp mu ñëw ak gëm la faa am ñu la weddi <laughs> faaw am ñu la weddi Ousmane Sonko li ngay ndaw ñu bëgg bëgg bëgg am na ñoo xam te boo leen yow ne Ousmane Sonko moo ba jël réew ñu ne yàlla bu mu jël réew mi mm-hmm. ko ñëpp mu ñëw bëgg nit ba ma demee tamit la ma def def naa ko ku boobu ñëwee musumaa toog na maa andi coupe bi. ma coupe bi de. waaw mais bi yàlla moo andi coupe bi Sénégal képp seen wërsëg la. mais bi ngay wax ni coupe bi dina ñëw boobu c'était bien avant lan nga gisoon euh, ba tax ci baatin nga ko tegoon ci xam-xam nga ko tegoon wala la ko tegoon. coupe bi jàll ba ci toppal nga ko tegoon bi nga koy wax. xam nga man turu nit ki képp su ma ko déggee tele nii su ma tëddee guddi mën nañu maa woon ci mbir yu bari bu lekk nga seetal la ko wax. la si te kilifa gu mag fii Sénégal coronavirus bii baa xam ne bi mu ñëw bokk naa ñu ko njëkk ci àdduna ci senegal fii Sénégal astaghfirullah ci Sénégal maa taal sama oto di dem benn dëkk ngelaw lu bari mën na sama safoor am na luy dugg ci dëkk bi mu ne ma sëñ bi looy wax nii ma ne ko waaw feebar la maa tëdd guddi gis senegal gépp di xeex bi waxi ma waxi dof de waxi nit laay wax njaay mhm. ma gis ay raison du ma tur raison yi nag ay raison bi la njëkk am effectivement bu dugg daal dañu raison bi la njëkk am ci laa ne Ousmane Sonko ci boppam dina am xam ma dafa am loo xam lu bari dama koy dama koy mm-hmm. wax ñi ma ko seqal. Mm-hmm. ñi ma ko seqal ku ma ko seqal nag seqal ma ko yow. moo tax ay defi sarax di ko wax ak non amul njëriñ li am njëriñ nga def ci yàlla tax rek. d' accord li ngay def d' accord alors euh, yaakaar naa ne loolu mooy un vrai patriote ah koo xam ne bu gisee dara dafay jóg génneel boppam ay euh, sarax bokkut ak euh, sëriñ nga xam ne ñuy toog nii wax nangam ak i nàngam mais tey sarax yi ngay wër ci région yi di ko génne dafa am loo gis ci Sénégal lu lu jar ngay génn sarax dafa da nga gis ni xañ na boo génnewul sarax yi jàmm dadul am lan moo tax lan lan lan moo la ci xiir. xam nga sarax dafa baax. lim gën a ndaw ci li muy fànq mooy deegu ñaaw. te kuy fànq luy fànq dee kooku jar na mën naa def sarax moo moo war a fekk kër gu nar a tàkk nit sarax kër gu du tàkk te sarax du sangu du def dara sarax la xam sa sarax. ñaare ba ci boppam sarax man naa fekk ku war a feebar ba médecin yi ne waxtu nangam day faatu. nga defe ko sarax mu jug du faatu ma defal naa ko nit fii koo xam ne mu ngi France la woon. feebar ba médecin jox heure. ay mbokkam woo ma téléphone. ma leen nañu génne nangam ak nangam ñu ne ma sëñ bi nañ la defal ñu ko ma leen déedéet. defal leen ko seen bopp actuellement damaa jàpp ñu ne ndax amoo ko ñu ko defal man kay am naa sama kër ay gardien yi ak sama bëkk néeg yi mën nañu ko defal ñu ñu ko defee actuellement ni mu ngi dund te boobaa léegi mën na 3 ans sarax rek mën loolu. Hmm. moo tax yéen bi ne dee leen saraxe. Hmm. waxuñu nag ku loo jot saraxe waxuñu la loolu. bu sarax baaxu doon suñu borom di indi benn du indi sadaxa du ko indi ci alxuraan baatu sarax baax gi mu baax moo tax suñu borom def wax nekkul ci alxuraan bul ko def mais lépp loo dégg ñu ne ma ci rek dëgg la. dafa am ku ne ma sëñ euh, euh, Bara Niane suñu borom daf ko may torop torop torop ci euh, wàllu nopp waaye fi mu ne damay toog naan sëriñ bi. <laughs> est-ce que amatina jotu toog di nopp sëriñ bi nopp ban heure lañ koy def. <laughs> nopp ban heure lañ koy def. Hmm. dafa am ay biddiw yoo xam ne biddiw boo xam day génn dix heures biddiw bi génn onze heures biddiw bi génn midi biddiw bi génn une ba waxtu quatre heures 24 heures bu ne daa am heure bu ne daa am vidéo buy génn léegi li tax sëriñ suba dañuy nopp du jàpp dafa am heure yooyu dañ ko xamul comme vidéo bi war a génn une xamuñu ko. samsul xamar wala samsul mariix wala naan nangam saxaroon la. ñooyu xamuñu ko. moo tax booy nopp nit bu vidéo bi leeree nii nga xam ne vidéo bi tey leer na. def na rooroon mais amul lëndëm lëndëm. léegi nag fekk waa ji ngay nopp mi ngi nelaw nga soog ko bu dee ngay def li ngay def nga soog ko def li ngay def. mais kon nopp guddee ci gën. non am